حذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح ننا وحذفك سحذف متبوع lu ñu topp mooy maatuuf alayhi badaa kooku sa xadaf maatuuf alayhi huna wa xadfu matbuuin xadafu lu ñu topp mooy maatuuf alayhi badaa moo xam ne feeñ na huna fii ci buntu ataf ak faa bu bu ataf ak faa moom la jublu ci huna ji kooku moom xadaf lu ñuy ataf ak faa daal xadaf maatuuf alayhi ma bàyyi fa maatuuf ma kon loolu dagan na moom la ne wastabix daganalal xadfa matbuin xadafu lu ñuy topp mooy maatuuf alay badaa mu nga xam ne feeñ na hunaa ci fii ci buntu ataf ak faa niki tey afalam takun ayaati tutla alaykum falam takun faa gi xarafu ataf la dégg nga nattaleem alam taatikum ndax dikkalu leen ayaati falam takun ba nekkul woon tutla dee fi ko jàng alaykum ci yéen alam taatikum ayaati falam takum tutla dégg nga ne kooku moom dana am wala lu mel noonu dégg nga alam taatikum falam takun awalam yasiru aajasoo walam yasiru kooku waaw itam danañu ko ko jëfandikoo awalam yanduru awalam awalam yaraw joo gis ci alquran loolu la awalam yaraw a amu walam yaraw a falam yasiru a ajasu falam yasiru dégg nu dem wa atfuka al fi'la ala al fi'li yasih nee na feel ni ngay atafe lisim ci lisim sa ataf feel ci feel it dana wér dana mën a nekk lu da man nga ni jaa zaydun wa rakiba wala nga ni akrim zaydan wa qum nga ataf qum ci akrim dégg nga waatif alas min shibhi ficlin ficla wa aksan istaamil tajidhu sahla waatif alal atafal ficlan ab ficl nga ataf ko fan alas min shibhi ficlin nga ataf ko ci lisim joo xam ne dafa niroog ficl ndax yor ay maanaam ay xarafaki maanaam niki fal mughiraati subhan fa atharna fa atharna maatuufun ala fal mughiraati fi'lu maat la dégg nga ñu ataf ko ci mughiraati da dégg ndaxte niru gi fi'l sax ci mughiraat dafa ëpp sifa naka jekk niroonte naag fi'l waxuma laag nag bu faf dikkee di silas mawsul ndax al mughiraati al ji mawsul la mughiraati wa sifatun sarihatun silatu al fal mughiraati fa fa atharna wa wa wa baxra atain kooku mooy safaan ba wa baxra atain yastaxifu almaabira kooku moo di mooy safaan ba mooy wa wa wastaamil jëfandikool ak san safaan ci loolu soo ko defee tajit hu nga fekk ko sahlan muy jàppandi man nga fekk itam feel nga ataf ca lisim ju niroog feel fa alfaytuhu yawman yubiiru yubiiru joojule mooy mafoolu ñaaru alfa alfaytu zaydan qaiman alfaytuhu yubiiru yubiiru kon barabu nasab la ne mu ataf ca wa baxra ata in baxra lisim la dégg nga aywa loolu nag mu ne wastaamil jëfandikool ak san safaan ci loolu waaye daal misaalam mun gën jege ci alquran yuxrijul xaya min al mayiti wa muxrijul mayiti min al xayi wa aqradullah manga dégg nga al badal al badal attaabicu almaqsuudu bilxukmi bila wasitatin huwa almusamma badala mu moo xaddu badal mooy taabic la taabic jins boo xam ne yóbbu na ataf bi nu génne at fu nasaq yóbbu na at fu bayaan yóbbu na naat yóbbu na tawkiit yooyu yëpp taabi la waaye yëpp ba mu ne almaqsuudu bil xukmi moo daaneel yenn ya almaqsuudu ya ñu jublu bil xukmi ci atte at fu bayaan daanu ndax moomu dañoo indi li tawdixi almutbaci rek leeralaat ko dong la waaye mutbac ba moo doon maqsuudu bil xukmi du dëgg ay tawkiid daanu dañu ko indi benn li iradati shumul wala li raf il ihtimal waaye doonul li mooy maqsuudu bil xukm du dëgg naat atam du dëgg waaye mu des nag at fu maanaam maat at fu nasax des bëgg cee bokk ni kon ma bokk ci ndaxte boo ne jaa zaydun wa amrun maqsuud la moom amrun bil xukm ndax maanaahu jaa zaydun wa jaa amrun waaye nag mu mu mu dàq ko ba mu ne bilaa wasitatin te fekk amul lu jaar ca diggante ba wuuteeg at fu nasax maqsuudun la bil xukm wala bi wasitatil xarf du dëgg waaye taabi boo xam ne maqsuud la bil xukmi te at bi mooy isbaat ga wala nafi ga te fekkit bilaa wasitatin mu génnee bon at fu nasaq ataf ak xaraf maqsuud bil xukm moo génnee yeneen yaari taabi moo génnee tawkiit moo génnee at fu bayaan naat la naat waaw mu génnee naat itam mu génnee naat génnee tawkiit génnee at fu bayaan génnee at fu nasax nag moom bilaa wastatin moo ko génne taabi bu mel noonu mooy moom la ñu tudde badal badal nag ñeenti xaaj la mutaabiqan aw baadan aw maa yustamal alayhi yulfa aw ka maatuufin bi bal mooy ñeent yi woon ca ajaroom yulfa def na ko fekk mutaabiqan mu nekk lu lu dëppoog mubdal minhuma ñu di ko wax badalu shay'i min ash-shay'i ñoo ni ki jaa zaydun axuka axuka ak zaydun benn la du lennam du lu mu làmboo déedéet axuka mooy jëmm ji zaydun mooy jëmm ji aw baadan wala lenn ni ki baadul baad ci akaltu samakata hatta ras aw ma yustamal alayhi wala duñu koy làmboo ni ki nafa ani zaydun ilmuhu dégg nga aw ka maatuufin bi bal wala mu mel nag lu ñu ataf ak bal yaani mu nekk lil mubayanati moo loolu nag ah moom la ajarooma ñeenteele moom badalul xalat moom it su ko defee tudde be beral gi mu ko beral xalat desal na ci moom badalul nisyaan dedal ci moom badalul idraab du dëgg te fekk na su noon badalul mubaayana mu doy ndax mubaayana moom mën nay nasax mën nay lidraab mën na na fàtte mën na koo waral nisyaan badalul nisyaan ak badalul xalat dégg nga ak badalul idraab yooyu yëpp benn misaal bi la dégg nga raaytu zaydan alfarasa doy na ci badal yëpp waaye tudde gi mu ko tudde benn xaaj ba bàyyi yee ca des moo ko manqué kii nag ni wala mu mel na maatuufin bi bal lu ñu ataf ak bal maanaam nga xani lidraab la boo ne jaa zaydun bal amrun du dëgg kon lu ñu ataf ak bal moom tegtale na ni bokkul ak kale kon nag badalul mu bàyyi na moo ko tax di wax xanaa li mu ni ka maatuufin bi bal beral ko bal daal def na tuuti kii ci moom ba ku ñu wax ahmad ahmad kadda ci naar yi def na ci ni ko daa man sikki sàkka na man de xaw ma lu mu jublu ci maatoofun bi bal ndax nee na anam goo ko jëmee rek mu mel na daal am na lu ca ne mu daal di ni fa in araada bi ma bi fii ka bi fa in araada fii ka maatu bi ka maatuufin bi bal fi qasdi ma ubdila minhu ma chamal ma chamal ah aywa aw annahu almaqsuudu bilxukmi fama dakara qablahu lahu daka ntama aw annahu mubayinun lilawali kon it fada ixtisaasu bal bihi gayru jali seeta rek fa in araada bika mactuufin bi bal fi qasdi ma ubdila minhu ma chamal ah aw annahu almaqsuudu bilxukmi fama dakara qablahu lahu daka ntama aw annahu mubayinun lilawali fada ixtisaasu bal bihi gayru jali nee na fa in araada su fekkee dafa jublu ci li mu ni wala mu mel na lu ñu maatoof ak bu bal lu ñu maat dégg nga mun a bu fekkee da cee jublu ci lan xanaa ci nga xani mubdal minhuma lu ñu jublu woon la bi nga naan jaa zaydun yaa ko jublu gannaaw gi rek nga ne bal amrun mel ni da ngaa gën a amal importance amal rek nee na waaw bu fekkee loolu la ci jublu ni mubdal lu ñu ataf ak bal moom mubdal minhuma lu ñu jublu woon ah nee na kon itam kon machama la nde yi ñu ataf ak bal mën naa nekk di lam yuqsadil mubdal minhu sahwu mën na koo andi jaa zaydun raaytu zaydan bal amran fekk da nga jubluwoo ko woon da nga juum ah wala mu ni wala mu jubli aw annahu fi qasdi ma ubdila minhu ma chamal aw annahu al maqsuudu bil xukmi wala mu ni badal bii ci boppam mooy maqsuud bil xukmi fii ka fii ka maatuufin lu ñu ataf ak bal foo ko fekk loola mooy maqsuud bil xukmi nga naan jaa saydun bal amrun bon amr moom nga jubloo wax laata dem saydan bal amran amran nga jublu yaa ko jubloo wax mu ne bu fekkee loolu la ci jublu kon itam ah nee na kon itam xanaa kay yi mu tukkoon lu mu yi mu dëkkoon a tudd door a tudd maatuuf bi bal na yooyu it noonu la di lu dëgg ma badalul mutaabaq jaa zaydun axuuka axuuka maqsuudun lamun bil xukmi bu dee baadan akaltu samakata déedéet ni ki ja akaltu samakata rasaha soo ko ca badalee ama masalan ajabani hindu waj wajhuha wajhuha di badal baad nee na maqsuudun la bil xukmi xukmul ajab bi yéem gi kanam gi rekk ko def su dee listimaal nafa ani cheydun ilmuhu ilmu bi maqsuudun la bil xukmi moom nga jublu ci atta bi mu ne kon bu fekkee dafa jublu ni maqsuudun la bil xukmi kon badal yi mu jëkkoon a waxit noonu kon lu tax mu naan wala mu ne noonu aw annahu mubayinun lil awali fa ixtisaasu bal bihi xayru jël wala mu jublu ci ni dafa mel ni maatuufun bi bal foo ko fekk maatuuf maag maatuuf aaya yu bokkul la mu ni kooku la tax kon nag jag bal day jagloo gu mu jagoo googu leen feeñul nde toujours al atfu yaqtadi al mugaayarat toujours ataf day tegtale ni bokkuñu jaa zaydun wa amrun ataf gi dafa tegtale ni ñaar la kon nag soo noon bal amrun itam ñooyam yooyu itisaar yu sew sewaan yooyu xam nga ñoom dañoo bari gëstu rek ahbal kadda nax wi yóbbu Mauritanie waaw defe naa ni defe naa ne ci xaw ma dafa bokk ci taalibe murabat yaxdi mbokk daaray Mouhamad Ali ibn Abdul xëy na ndax ku ñu ku rafeti way la nag te te am diqatu nadar fa in araada bika maatufin bi bal fi qasdi ma ubdila minhu ma shamal aw annahu almaqsuudu bilxukmi fa ma dakara qablahu lahu daka ntama aw annahu mubayinun lilawali fa da ixtisaasu bal bihi gayru jali وذا للإضراب سوء قصدا صاحب ودون قصد غلط به سلب وذا بيغا خاني دفا ملني معطوف ببل وعسو أسك وعسو أسكنيل ذا فيسون بي ملنا معطوف ببل للإضراب جمتي إضراب أقدم موي واتلو جكلا مانا من نيكو من نيدون بدل الإضراب إن إن صاحب سفكي عندنا قصدا جبلو تبو جك بياكو جبلو ون كون بون ني الإضراب ني أضرب عنه la mu jëkkoon wax daal da koo dummoyu léegi wax leneen wa wa doona qasdin su àndul ak jublu askane ko kon xalatun njuumte la loo xam ne suli ba dañu ko dindee bi ci badal bi waaye moom it kon it mu des nisyaan lu dëgg kasurhu xaalidan wa qabilhu lyada wazifu xaqahu waxudu nablan mu daa ñeenti misaali badal yëpp bu dee badalu chey min a chey zurhu siyaare ko moom waaja xaalidan xaalid badal la ci damir jooju te badalul chey min a chey qabilhu fóon ko alyada loxo ba loxo badal la ci jëmm qabilhu moom zayd mu badal ci albadala loxo ba alyada loxo ba waarifhu xam ko moom zayd xaqahu xaqam xaq mustamal la ma ngi mel ni ilm waarifhu xamal zayd xaqahu xaqam maanaam xamal xaqu zayd xaqu xaqu waay mustamal alayhi la du cër ca jëmm ja du leneen lu wuuteeg waaj waaye mustamal ah badalu lidrab bi xus jëlal nablan ay ay fet mudan ay paaka nablu ismu jam i sihaamin im ismu jam i sahmin benn fet ak ñaar kenn du ko wax nablu benn balu fet ñaar waaye bu xasee mat ñett rek nabloo ngoo mudan jam u mudiyatin moo di ay paaka ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا ولا تبدل بل بدل الحاضر الظاهر الاسم ظاهر بكو بدل من ضمير الحاضر كي ضمير حاضر أما ضمير غائب سنجكو نكو واعرفه حقه أك أكي أك مرومي surhu xaalidan nga badal lismu zahir ci damir xaayib kooku mën na nekk dégg nga waaye damiru xaadir mutakallim wala muxaatab kenn du ca badal lismu zahir ñu ni faw mu ni illaa ma lu dul la nga xam ni jalaa dafa feeñal ihaatatan ak peeg te mu bañ di du dëgg naxwu nu mu ko waxee anzil alayna lana ciidan li awalina wa axirina ijcal lana ah takunu lana ciidan da loolu nu lay ñaan te nga an tunazila alayna maidatan min alsama soo ko defee takunu lana ciidan damiru lana nag mu ba badal ca majroor la billaam mu badal ca li awalina wa axirina awalina wa axirina maanaa li jamiina kooku ixaata la peeg la kooku moom dana mën a nekk illaa ma axata dunda nga waaye loolu moom kon damiru xaadir boobu bu dee mu bu dee xitaabit loolu bu mu am du dëgg aw iqtada wala boog nga xam ne dafa sàkku baadan day day kile ni ki qabbilhu al yada badalul baadi min al kulli la aw istimaalan ni ki irifhu xaqahu ni ki inna ki yow ndaw si ibtihaajaki sa mbég gi nga bég istamaala jàngal na xol yi jëme ci yow ibtihaajaki lismu zahir la badal la ci kaaf googu nga xam ne mooy lisimu inna inna ki ibtihaajaki istamaala inna amraki lan yutaa wa wa ma aataytani wa ma alfaytani xamli mutaa wa ma aataytani dooma fekk damir mutakallim mu badal ca ximli maanaam li ma yene mutaa an muy lu ñu niilal wocc wa yubdalul mudam wa badalul mudammani alhamsa yali hamsan kaman za a saidun am ali badalu lu làmboo maanaa hamsa wa badalul mudammani alhamsa wa dam wa badalu lismi almudammani maana alhamsi dégg nga niki man ismul istifhaam la ak yu niroog moom la nga cay badale yali day ànd ak xamsan xamsa niki boo ne man za kii kan la a saidun am aliyun kon bad said badal la ci man ci dégg nga man za kii mooy kan za kii man kumu a saidun la am aliyun man za soo ko doon leeraab du dëgg mubtada xabar la waroon doon waaye ismul istifham mooy jiitu bu dee xabar ak lu mu doon man ana kan za ki za kii man huwa foog nga ne man haada asaidun ndaxte man làmboowul hamza waaye la maanaam laftu hamza newu ci waaye làmboona maanaam hamza ak listifham kon badal ba moom na ca listifham nga ñëw wa yubdalul filu min alfili kaman yasil ilayna yastain bina yuan wa yubdalu danañu badal al fi'lu fi'l min al fi'li ci fi'l xeeti badal yëpp mën na ca am badalul kulli min al kulli mën na ca am du dëgg badalul baadi min al kulli mën na ca am badalul istimaal mën na ca am waxuma la ak badalul idraab yëpp mën na ca am ci fi'l ak fi'l ni muy amee ci lisim ak lisim yëpp mën na ca am awa masalan su fekkoon ne da nga ni su fekkee ni masalu badalu shey min shey mu ni in tusalli in tusalli soo dee julli taabudillaha ngay jaamu yàlla kooku sax mën nañ ko tawil badal istimaal waaye kooka maanaam in tusalli aywa tatas tatasaddaq nga badal ko ci tujji sa fayees la in tusalli tatasaddaq wala muy badalul baadi in tusalli tasjud lillahi yarhamka sujud baadu salaati la du dëgg badalul istimaal melo moo mel ni ki li mu ni man yasil ilayna yastain bina yuan man yasil ku jot ilayna ci nun yastain muy sàkku ndimbal bina ci nun kon yuan dimbalees ko yastain yaa ngi ko jasam badal la ci yasil badalu lan la ca badalu listimaal li anna alwusula ila al masul yastamilu list yastamilu ala maana listiaanati kuy ku di ba ñëw kaaje yi diw jublu bi nga ko jul ba àgg ci moom loolu listiaana la kon làmboona maanaam sàkku ndimbal su ko defee baatu yastain ji misaalu badalul istimaan la dégg nga misaalu badalul kulli minal kulli in jitani tamshi ilayya ukrimka wa basal badalul baad in tusalli tasjud lillahi yarham wa misaalu badalul idraab in tutim zaydan taksuhu yashkurka yujza bihi kooku juj waaw kay yalqa asaaman dégg nga yalqa jooju ci la ñu badal yu daaf dégg nga mooy kooku kon bismillah wa nida inna alayya allaha an tubayi'a tu'khadha karhan aw tuti'a tayi'a inna alayya allaha ko ngiñ la rek inna ala antu inna alayya allaha an tubayi'a an tubayi'a nga jaay nga jaayante na say moroom tu'khadha karhan ama kookoo tam badal la kon ci an tubayi'a mu door ca ataf aw tuti ataaya aw taji ataaya annida wal ñal na ku ñuy woo annaa i al baid mu doyloo kasra gi xasaf laamu baat bi naa i na aay sore na nee na ñeel na ko aw ka naa i wala lu mel ni ku sore ku noppam neexul wala ku xaafil wala kuy nelaw ñooñu boo leen dee woo nga andi yaa yaa zeydu sore ga moo ca doon cosaan man nga ko wax ku naqaree déggal wala ku ak ni ki xafla wala saahi wala naim nga ni ko yaa zeydu fekk sax ma nga fa wa ay itam ñeel na ko ay zeydu wala aa nga ni aa zeydu naka noonu aay it ca la de waaye kii andiwul boobu baat aay zeydu naka noonu ayaa kaza naka noonu aya aya zayd summa haya bi ibdalil hamzati ya an nga ni haya zayd yooyu yëpp li sore yaa ay a aay aya haya juróom benn yëpp lil baid wal hamzu lid daani hamsa faqat moo ñeel ku jege a zaydu ku dend ak yow illa an yunazala manzilata al baid lu dul soo ko defee ni ku maanaam illa an yunazala al baidu manzilata al qarib man nga fekk ku sore nga def ko nag ku jege di di ko wax noonu wa waa baatu waa ci nidaaw ba tey xarafu nidaaw la liman nudi ba ñeel ku ñuy nud nud woote nud batu nud batu mooy al mutawajjau minhu aw il mutafajjau alayhi mutawajjau minhu lu ñu metit lu ngir moom ni ki waa rasa wuy saa bopp bee metti kooku nidaa la waa rasa a wala mutafajjaw alayhi ku ñuy mettitu la ko dal ni ki waa umara waa fulana dégg nga yooyu yaar ñoo di nudbatu woote la nag dégg nga liman nudib aw yaa wala yaa danañu ko nudbaa niki xummilta amran aziman fastabarta lahu wa qumta fiina bi amrillahi ya umara ah xummilta amran aziman teg nañu la mbir mu diis fastabarta lahu nga muñ ko ba ni nga fi jóge wa qumta fiina taxawoon nga fi nun bi amrillahi ci doxal mbiru yàlla santaane yàlla ya umara kooku nut bala du nu daaw di daaw nde boo fekk na umar deena te itam bu fekkoon da koy woow woow dëgg-dëgg yaa umaru lay wax bu doon dundit yaa umaru mooy waaye yaa umara dolli ci alifu nud ba mu ni waa ak yaa waaye wa xayru waa lu dul waa waa kon uctu ne ba nañu dañu wattandiko xayru waa lu dul xayru waa lu dul waa la da lëb si fu bu lënt na ree am uctu ne ba wattan nañu ko bu fekkee boo indee yaa mu jaxasoo kenn du ko xàmmeek ku ñuy woo ni ki yaa umar bu fekkoon ni umara ga fa teew kooku kon boo ne yaa umara du ñu xam da nga ko bëggoon a woo wala da ngay nut ba moo tax bu lënt naree am daal lu dul kii duñu ko def wa xayru waa la dal lépp si tënk dégg nga su ko defee nga nii na tëg nga teg laan wa xayru mandubin wa mudmarin wa ma jaa mustaxaasan qad yu arra fa alama waaw nee na wa xayru mandubin lu dul lu ñu woo wooteb nut ba ni kii wo- yaa umara wa mudmarin ak lu dul damir dégg nga wa maa jaa ak lu dul loo xam ne dafa dikk mustaxaasan di lu ñuy xettaliku ci moom di ko woo woowu listixaasa nee na kooku xad yu arra mën nañ ko rafleel ci xarafu nut ba ba faalam xamal lool maanaa ci xarafu nidaaw man duub kenn du dindi xarafu nut ba wa xarafu nidaaw ba damir soo ko woo ni ki eh, yaa anta nee na kooku kenn du dindi yaa ja di fa bàyyi anta kon dañuy defee mubtada la rek ñuy déglu xabar wa maa jaa mustaxaasan loo xam lu dul it loo xam ne dafa dikk di doon lu ñu woo woote listixaas bëgg mu wut wëyu la yaa la zayd pour mu wallu yaa la zaydun lil muslimin nee na lu dul yooyu moom mën nañoo xadaf ni ki rabbi ak rabbana joo gis ci alquran yaa rabbi yaa rabbana dégg nga ah wa zaaka fi ismi ljinsi wal mushaari la qalla wa zaaka woote boobu nag ni daaw boobu te mooy maanaam xadaf arafu ni daaw boobu qalla néew na fi ismil jinsi ci ismul jins wal mushaari lahu wala ismul ishaara ni ki atriq kara inna naamata fi lqura qara kara qara kara ismu jins la li baad tuyóor yi maanaahu karawaan xeet la ci picc jinsu picc la ñu naan atriq kara suñu bëggee def masal koo xam ne dafay rëylu te ku ko gën a ngande nekk fa di tor di woyoflu ñu ne ko atriq kara kara sëggal inna naamata ndax bànjooli fil qura ma ngi ci dëkk yi bànjoolee ngi fi sëggal te du sa moroom ñu di ko wax yudrabu liman yatakabbaru wa qad tawaadaa man huwa ashraf kon karaa boobu ismu jins la néew na nag ñu xarafal ko xarafal ko noonu kii naka noonu wal mushaari lahu ni ki ismu lisaara ni ki haada te yaa haada la ñu dégg nga ni ki ida hamalat ayni laha qaala saaxibi bi mithlika haada law atun wa garaamu ida hamalat ayni bu sama bët sottee rangooñ lahaa ngir ndaw soosu qaala wax saaxibi sama àndaale ni ma bi mithlika ci sa ku mel na yow lay nekk law atun maanaa ak tàngooru xol waxaraamu ak taru cofeel haada yow waa ji yaa haada foofu xadaf na xarfu ni daaw te muy ismu lisaara nee na loolu qalilun la ndax haada soo dindee ismu lisaara day niroog mubtada kon bu dee ismu jins daal bàyyi woon fa yaaja mooy li bare waaye dana néew nga naa atriq karaa lu mel noonu naka noonu yaa haada foofu wa zaaka xasaf xaraf woowu xalla néew na ci ismul jins ni ki kara wala almushaaru lahu ismul ishaara ni ki haada waaye nag li mu néew néew wa man yamnaahu ku ko bëgg a tere complète ah fansur dimmilil aadi lahu ka koy yedd ka ko ni déet waaye sama waay bu ko tere nag àndal ak kooka ndax it dafa bariwut waaye dikk na ay place ci waxi arab aywa haulaay ismul ishaara la ana harfu ni daawa